bismillahi irrahmaani irrahim rabbi israh li sadri wa yassir li amri waxlul uqdatam min lisaani yafqahu qawli mbokk ñu déglu asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu asbaxnaa wa asbax al mulku lillah walhamdulillah wa laa ilaha illa allah wallahu akbar allahumma inna nas'aluka xayra ma fi hada la ma fi hada la wa sharri ma baad wa naudu bika min adabin fi lqabri wa adabin fi naar mbokk yi Sud FM seen rajo ci waxtaani fajar mi leen defal fajar jot ci waxtu wi dellu si na ci kàttanu sunu borom tabaaraka wa taala ji leen ko defal si ngeen ci ànd ak seen mbokk Alioune Sall ginnaaw ba ñu santee yàlla subhaanahu wa taala julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñaan jàmm ci réew meeg réew yi ko wër noo ngi dellu siwaat ci sunu waxtaani fajar yi ginnaaw bi ñu ndokkeelee liggéeykat yépp ndokkeel liggéey ndokkeel réew mi di ñaan sunu borom bu feet gii dellu siwaat yàlla ñu fi fekk buy dem yàlla ñu fi bàyyi nim ñu fi bàyyee tabarakallahu nekkoon nag ñun ci suñu tomb boo xam ne ci biir kër yi ci la ñu nekkoon di waxtaan ci ak ñaari way dencante yi macha allah jeexaluguñu woon ci ak ku jigéen ki ñu war a ñëw ci àqu jigéen ci sartanteeg ne duma am wujj jigéen bu fekkee góor a nga koy takk lislaam daa bëgg ku am ñaari jabar nga maandu yemale seen diggante soo ko mënta def bul takk ñaar jigéen boo koy takk sañ na ne duma wujje waaye sañu te wax ne waccal kee te takk ma loolu daganut du ma wujj nag dagan na mooy soo ma takkalee wujj ma dem góor gi it sañ na ne man duma takk ku bañ wujj suñ jaxasee dugg nag ñoom ñaar ulama yaa ngay wax ne mën nañ koo wéyal signature ba la ñuy tere ndax lan na ca ginnaaw signature ba moo tax maanaam dem tribunal signé fa ne du ma du ma takk ñaareel lan na ci ginnaaw signature ba moo tax ndax bu kii faatoo boo takkaatee signature bi daf lay topp te it sañ ba baa ngay faatu sañoo weesu benn ndax signature boobee loolu moo tax lislaam di ko tere ndax su boobaa araamal lu yàlla daganal lay bëgg a tekki kon jigéen sañ naa wax ne man kat yaa ngi may takk waaye du ma wujje loolu boroom xam-xam yi ña ngi koy indi mu ngoog su boobaa wuñ takkantee dem ba ci biir nag ku góor ka waxoon ne du ma ñaareel daal dem ñaareel moom loolu jëfi wor lañ koy tekkee jëfi wor lañ koy tekkee tabaarakallahu chartal yooyu dikk na ci yonent ba alayhi salaatu salaam ba muy may Fatima Sidna Ali mu ne ko inna Fatimata minni wa ana ataxawaf an tuftana fi diiniha mu ne ko Fatima day ci man la bokk te bugguma lu koy yàqal ba yàq diineem ci fitnaal ko mu nga loolu bi ko yonent bi waxee teewul tagg na goroom bu yor ay soxna tagg woo xam ne yor gam yor soxna yàgg rafetaay ba moo tax mu tagg leen kon bind nga noonu bu am am solo ci wàllu takk jabar walla ci wàllu àq ki ñuy takk ci ne duma wujje su ko defee kii takk nag mooy seet moom ndax mën naa takk ku dul wujje walla wàññiwu ko dara loolu àq la ci jigéen ji ma ñëw ci tomb bu am solo ci sëy ñu koy wax al azl wala taxdiidu nasl boroom xam-xam yi dellusi nañ léegi ba tudde ko tansi mu nasl al azl mooy góor guy joteeg soxnaam te ndox mi tax a am doom mu koy tuur ci bitti ngir bañ a am doom taxdiidu nasl mooy yemale fa njurum doom ma léegi nag am na yeneen tere muy bees mooy tansiimu nasl mooy planning familial lislaam boo demee ci sabab yi nga xam ne moo tax ñuy takk jabar muy sababu wàllu li tax góor di takk jabar li tax jigéen di sëy dafa bokkoon ci yooyu lu ama am solo lu ñuy wax am ay doom lu ñuy wax am ay doom loolu muy takk jabar wasilatun li injaabil awlaad ami doom ak bëril askan wi ndax dund gi continuer su ko defee yonente ba sallallahu alayhi wa sallam mu ne woon ña ko waroon ak jullit yi ba yomal xiyaam te zawwaju takk leen mu ne tazawwaju takk leen alwaduut ay jigéen yu jonge alwaluut te mën a bari doom fa inni man muhammad mii mukaathirun bikumul umam damay ëppalanteeg xeet yi bu yomal xiyaamee ci yéen maanaam yonent bi daa bëgg bu nooxoon taxawee na ñii may seen sëriñ saalihu taxaw ni ñii may seen sëriñ Muusa taxaw ni ñii may seen sëriñ Isaa taxaw ni ñii may seen sëriñ moom tam mu taxaw ni ñii may seen sëriñ kenn du ko ëppale loolu la yonent bi bëgg looloo tax politiciens yi ñoom ñëpp wax ji yonent bi wax suñu sañoon loolu la ñuy def mooy mukaathirun bikumul umam ndax politicien boo ci dégg kenn mënulu ko dara baasam a tax ku ci amul baas doo yendu fa nga nekk bu fekkee def nga dara loolu li ma ko xamee li ngeen ko xamee moo ko ëpp professeur ji bi yonent bi daal di soññ xeetam bi ne dafa bëgg bu yomal xiyaamee kenn du ko ëpp ay dongo xeetam bi kenn du leen gën a bëri sallallahu alayhi wa sallam ndax doom yu bari cim réew doom yu bari ci kër dignité lay yokk borom doom ya ak personnalité loolu la arab yàgg a wax innama al izzatu lil kaafir defe ne xisab abdul muttalib bi jur abdallah mi jur yonent bi gis ngeen ba muy am benn doom képp te gas zam-zam na ko arab yi def duma ko ba tabarkalla abdul muttalib sërëm sëlëm rongañ ya dellu këram ca barzan ji bu cheikh bu suñ maam maam musaka waaw abdul muttalib sëlëm rongañ ya dellu këram waaw dëkk loxoom sunu borom nag ñaan ko fukki doom yàlla may ko fukki doom yu góor ak juróom benn yu jigéen kero lañ ko mujj duma loolu nag du dañ mukk loolu du dañ mukk léegi nag àdduna daa di xewal lu ñuy tuddee planique mooy boo demee Europe walla nga dem Amérique dañoo bëri wuti gone léegi gone yu nekk ci ay quinze ans jëm vingt bëreetuñu ko ay màggat lañ bëri le te màggat ci mpénc la muy def du jag genn màggataay gi nit ñi tàmbali ubbi buntu ca Europe ak réew yooyu nit ñi commencé di émigrer di fa dem ñu ubbi leen buntu yaatal leen di leen may kayit bii fi ëppee loxo gaa yi di gaa yi nga xam ne ñooy seet mbir yi gis ne réew yi féete fii dañoo bëri ay gone lool réew yi féete fële néewi gone ñi ñi ñi néewi gone bu ñu bëri gone muusut dañuy dem ba néewi gone ñoom tam moo tax bu jigéen nekkee ci néegu sëyam te fas yéene wute ami doom geneen jigéen def ko geneen jigéen def ko téeméeri at ci kanam wala juróom fukk la dal ñële day dal yeneen réew ya looloo tax lislaam bëgg jigéen buy sëy mu ami doom mu am ay doom ndax yu baree bari yàlla gàll ci doom te it li tax yàlla amboose jigéen ñi ami doom ca la bokk loolu mooy azl loolu mooy tahdiidu nasl gaa yi walbati ko pour nit ñi ñeme ko ñu tudde ko tanzim waaw organiser waaye dañ doon def tahdiid baat bi moom noonu lañ ko doon defe waaw lislaam bu fekkee nag jigéen ji moom moo feebar ba nga xam ne àttanul ab ëmb walla ëmb ya nekk mawsuula mawsuula loolu boroom xam-xam yi démb daanañ ci bind ndax xamuñu woon cause bi nga xam ne moo ci yóbbu nit tey ndax la taxoon nit ñi doon ko def démb ak li tax ñu di ko def tey loolooy wuute bi moo tax muy masala moo xam ne ustaas ba daa toog ca taabal ja benn islamologue war a def l'islam ak planique planique familiale bi ñuy bëgg a tàmbali mu déey président bi ne ko bu xaraam bi nga bëgg walla bu dagan bi ñëpp ne këpp ci suuf maanaam bu ne ko na dagan moom mën na koo daganal ci taabal ji bu ne ko na xaraam moom mën na ko koo xaraamalal ci taabal ji ñëpp ne këpp masala mu mel noonu looloo koy waral mooy bi masala mi ñëwee ulama yële ca seeni jamono la taxoon nit ñi di ko def bokkut ak tey ci sunuy jamono li tax nit ñi di ko def soo attee ca période yooyu professeur loola li ngay wax lépp dañ naan dëgg la boo attee ci période yi li nga ci wax lépp dëgg la loolu mooy masalam lasper waaw masalam lasper waaye boo indiwaatoon ñoom imaamul Ghazali ña ca doon wax ñoom gaa yooyu ci doon wax ñu gis lim xewe dinañu xam bu baax a baax nu mu demee ndax léeg-léeg nit ñi def ko jublu ca ne dama munta yor xale yi te loolu yàlla da ko réglé woon ci alxuraan nax narsuqukum wa iyaahum léeg-léeg nit di ko def ne suñ soldu bi xale yi xajuñ ci yàlla ne nax nu narsuquhum wa iyaakum bu ci nekk rek am na fu mu ca wax moo tax bi ñoo ñu ñëwee di woyofal ak a daganal ngir loola ahlu zahir dañoo wax ne manul xamli xaraam ñu ne di joteeg jigéen ba noppi defi pexe ba du am doom mbaa moom mu def ko ba du am doom ñu ne xaraam ñu ne saaba yaa ñëwoon ci yonente ba laaj ko mu ne dhalika huwa al wadul xafi loolu de mooy suul doom en se- en secret mu ne leen loolu de mooy jur suul ko en secret ndax ulama yi dañuy wax ñoom ne bu fekkee dooma ngi sosu bu àggul ci nàngam ku ko dindi walla ku fexe ba amut nàngam nàngam ñoom ahlu zahir ñu ne déedéet bu fekkee ak jote am na diggante jëkkër ak jabar ba ñaari ndox yi daje rek tuur ndox moomu dañ koy tere waaw tuur ndox moomu dañ koy tere ndax ki bëgg a defar mayonnaise jëli nan ba toj ko def ko ci palaat bi te defu ko defu saafagu ko loolee lekk kook tuur ko ak yàq la loolu la ñuy wax biñ ko waxee imaamul Ghazali rahimahullah ne leen innahu lwadul xafi ka xawlihi ashirkul xafi mu ne wa zalika yujibu karahiya karaha la taxrima mu ne leen loolu lu ñu sibla waaye du lu xaraam ala kulli xaal mbir maa ngi noonu jëpp jigéen joo xam ne as gor la bu nekkee ci néegu sëy ne du ko def araam na ci jëkkër jëm mu di ko def bu jëkkër ne duma ko def araam na ci jabar jëm mu di ko def buñ ca dëppoo ñoom ñaar nañ seet ci docteur ba seeti borom xam-xam ba wax lu tax ñu bëgg koo def loolu bum simple mukk ne kenn ku nekk na ko def yàlla soo gisee professeur sëy yi jafe ci penc mi lool jëkkër jafe lool bokk ci crise yi crise yu jëkkër mooy ginnaaw bu la yàlla embauché doo ami doom maanaam boo gisee chauffeur boo xam ne bii chauffeuru taxi la Arouna Niang boo ko embauché du wersi yaakaaruma ne da nga ko embauché booy embauché chauffeur këlaandoo wala njaga njaay mbaa taxi wala tata wala Dakar dem dikk la ngay bëgg mooy muy xëy di verser waaye bu fekkee du verser benn yoon léegi tey yow far doo ko embauché yàlla loolu la xam ci jànq ji loolu la xam ci jéeg ju bari fi ne sëy boo gisee bareetut mooy nit ñi sunu borom comme bu leen embauché duñu verser di bay tool te tabarkalla du récolter mukk sunu borom moom it tabarkalla pénc bi rekk mel noonu nag takk gi néew lool fase gi bari lool waaw amum doom mi néew lool tuutey takk lu barey fase kon tomb baa ngi noonu ci wàllu sëy ñu koy tuddee planning familial loolu nan ko xóotal te waxtaan ci te bàyyi ci xel te bañ a defe ne rek nu neex waaye mu def ko parce que daal xale yi dañuy bari ci kër gi nangam nangam yooyu la woon démb ak li tey ña doon def démb ndax saxaaba yi ridwanullahi alayhim ajmain da nga daan am soxna waaye boo amee soxna ba noppi da nga daan am ay jaam jaam yi nag bu ñu ëmbee doon ci du ñu nekk ay jaam ñu daan def pexe yi moytu ba du ñu ëmb dikk na ci. sëy bi tam li ñuy tuddee avortement avortement mooy dindib ëmb waaw dindib ëmb loolu tam ulama yi wax nañ ci ab ëmb mooy bu ñaari ndox yi dajee dund ga tàmbali loolu bi ci ulama yi wax démb tey boo boo leen laajee tey sunu mbokk ma al Oustaz Assane Fall nga xam ne xam-xam yooyu la jàngi woon ndax ku bëgg a yar da ngay jàng xam-xamu nit ak nite te xam-xamu nit ak nite ma nga tàmbalee ca fa nit di tàmbalee waaw mu ngoog borom xam-xam yi ñu ne بعد استقرار النطفة في الرحم لا يحل إسقاط الجنين ñu teg ca ne بعد مضي مئة وعشرين يوما ñu ne bu fekkee am na téeméeri fan ak ñaar fukk loolu lañ wax ñu ne boo xasee am téeméeri fan ak ñaar fukk ku ko dindi rey nga nit Oustaz Al Assane Fall mu ne waxuma la téeméeri fan ak ñaar fukk waaye bu jotee amee diggante jëkkër ak jabar ba ñaari matières yooyu daje ku ko dindi yàgg ki dindi lii yéen a yem nit ñi nag dañ koy def ay maraaxil naan su fekkee ma nga ca tollee nangam su tollee nangam def ci détail yu bare bare bare bare waaye xam ngeen ne bu ñaari yooyu dajee ku ko dindi nit nga dindi ndax bu ñaari dajee rek. dunduk nit foofu lay tàmbalee ndax yàlla xam na léeg-léeg nit ne ci kër gi di sëy ànd ak jëkkëram ab diir te ëmb du sosu waaw bi mu àndeek moom nag ëmb sosu nga dindi loolee loolu la ñuy wax su fa weesoo nag beneen affaire la loolu moo tax lislaam daf koo tere lu dul ñu gis ne doom ji kii ëmb buñ ko dindiwut buy wasin mën naa ñàkk bakkanam loolu tamit bu ko kenn làqoo wax ci penc mi rek daal jàpp ne jigéen ñëpp war a ñàkk seeni bakkan bu ñu am doom déedéet yàlla cuuneewul noonu bu jigéen tollee ci sëy sëy buy am doom du problème waaye toog ba sëy weesu nga door di sëy cool na ku ci penc mi te mel ni daaw fi xew ba noppi di fi xew ah loolu itam bu nu ko làqotoo di ko def moom daal dindi ab ëmb dañ koy tere kon ñaar ñuy sëy nañu bàyyi xel ci ne dañoo war di am ay doom dindi ëmb ak wut pexe muy tee am doom day tee am doom mu ngoog nee nañu jigéen su fekkee am nay doom yim war a am moyen bi ku ne xam na ko bu ciy pexe duggut bu ciy pexe duggut rek moyen bi ku ne xam na ko su amee doom yi mu war a am fokk sunu borom defal ko teraanga ci biir doom yooyu doom ju ko gën doom ju ko mën a yor su defee pexe ba bëri wuti doom yàlla léeg-léeg mu nattoo ko doom yoo xam ne kenn mu leen a jubbanti loolu doom yu néew moo koy waral ndax wolof nee na ganaar bu wéetee ci walandoo nu ko neex gëse nit ku am ay rakk ak i mag ak i doomi baay ak i doomi bàjjan mu am mbañum rus mooy gën a yomb ci moom mu nekk fa moom dong walla mu nekk fa ak kenn jékki-jékki rekk nga gis muy naan lu mu warta naan mbaa nga jékki-jékki gis ko muy tux mbaa nga jékki gis ko muy génn kër gi dem walla yu demee ni ki yooyu waaye boo amee doom yi nga war a am sunu borom dana la waaw góoral dana la jaajëfal ndax sunu borom dafa bëgg lool mbirum am doom ndax yëg ngeen ne ku rey nit bàkkaar bu rëy bi ngay am ku am doom tuyaaba ju rëy noonu ngay am. ku rey nit nii la yàllay meree rëbb la bàkkaar bu mag bi ngay am boo amee doom tuyaaba ju tol ni bàkkaar bi loolu ngay am mooy sens contraire bi ndax kii dafay jël nit kii indi fi nit loola waral boo reyee nit te teyoo ko ñu lay wax nga goreel ab jaam maanaam am na koo génn ci xeet wi kon dugal ci keneen waaw dugal ci su gor doom yi jigéen ñi léeg-léeg gis ci koo xam ne kii day am ci ay doomam doom joo xam ne ji moom yaay ji day yëg ne sama doom ji moo ma gën léeg-léeg muy góor léeg-léeg muy jigéen xe penc mi yëpp bu fekkee am nga doom yi nga war a am yëpp defoo wenn pexe wala nga am ci doom joo xam ne ji gënu bu la gënut it ni yow la mel ni yow la mel ba tabarkàlla yi ngay toppatool baayam yëpp moom nangu naa taxaw di ko toppatoo lu tax parce que dafa mel ni yow kon ay tomba ngi noonu yu am solo te pénc mi soxla ko lool war cee laaj lislaam luy xalaatam mooy nañu sëy waaye yonent bi bëgg na ci ñun ay doom yu bari ndax baasu politique am ëllëg baasu pénc ma yowmal xiyaamati ci ci ci ci doom aadama yi ci jullit yi la ko soxla waxuñu fii naan ay qualité la soxlaa ki quantité déedéet moom waxutoon loolu ci hadis bi waxutoon loolu ci hadis bi tazawwajul waduudal waluud fa inni mukaasirun bikumul umam yawmal qiyaamati jërë ngeen jëf ak seen fi war a yëkkate jataay bi ndax suñ mbokk yi xëy ci xibaar yi ñu ngi nii taxaw yor seen i këyit bëgg leen fi ñu fàncal xibaar tubaab fi ñu fàncaloon ko ci wolof ñaan leen yàlla ñoom ak yéen ak suñ technicien bi yàlla na yàlla defar seeni mbir defar suñuy mbir te def ci suñuy poos dara kenn danañ ci waxtaani moo di seen mbokk Alioune Sall in uridu illa al islaaha ma stataatu wa ma tawfiqi illa billah wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu